fay naa la danga yàq suma tuddi garab gi àndala buri la tudd àndalaay dëkk la àndala mooy garab gi nga xam ne góor ñi dem ba ñàkk yaakaar foog ne dañoo paan àndala moo leen di deka dépanne ni leen di dépanne nag mooy yëkkati siddit yi góor war a ittewoo ngir mbiram jug moom lay yëkkati xam nga ci ñaata fan wala ñaata weer ci ñaari waxtu garab googu ci deux de temps moo tudd àndala buri mais du am ndalaay buur am mbégte ak kontaante teew file waaye di teewaaleel tamit su ma site bu mag bi la di people 221 eh, ñoo ñëw seet si ma tey xam nga lii dafay wane ne presse Sénégal benn la bu leen neexoon ngeen def ko benn benn mais da ngeen ko boole loolu loolu jàmm jooju nekk seen diggante yàlla sax ndax lenn rek moo leen tax a jóg mooy askan wi yëg lii xew waaye seetaan ko askan wi mën a bégee mbégte mii xew waaye am ci sant yàlla su paree na ngeen ubbi commentaire ku ne am ci xalaatam maa ngi leen di dalal seen waaw ku ne nu sa ndey sëye sa kër baay rek ngay wane ci pénc bi olof a ko wax géwél ko woy xamaguma ko de mhm. mhm. danga miin góor danga miin góor ñi ngir góor nga rek waaye doom aadama bokk na ci teraanga yi ko yàlla teralee mooy kattante loolu noo tere ma en fait waxuñ ci leneen lu mooy katante moo tax ma waxee ko noonu ok su ma ko waree waddul naka laa ko war a waxee de sëy mooy katante di ñaari grammaire yu wute mu ngi mel ni juróom ak five benn la maanaam loolu mënoo ko wodd ba doo ko tudd mënul nekk wala ñu wala ñu nekk ay complexe def di tuba di wax ko waxi tubaab ñu wax sex waaw kon ay complexe lañu maanaam bokk na ci teraanga yi yàlla terale doomu aadama mooy sexe <coughs> dem na ba ci production doomu aadama ci sexe la basé <coughs> ñett rek ñoo ñëw ci lu dul sex yonent yàlla aadama mi ñu defar ci suuf xawaa mi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci aadama yonent yàlla Iisaa bi nga xam ne ci jigéen la génnee te góor fekkewu ko lu dul ñett ñii rek ak loo foor foor loo màgg-màgg wax dëgg yàlla suñ ko waxee ak suñ ko bañee wax ci sexe nga ñëwee. garab gii boo demee Côte d'Ivoire ak Burkina am nañu atoote tey Sénégal sa garab gi mu ngi lëndee secret garab gi lan ndax gis nañ fi ay sëriñ si dëbb ay compé di ci def sumu di jox gaay ñu yëg seen bopp naa ne boole café ak mel mais àndalaay bi mu ngi bëgg a jaxase man suma garab gi secret bi mooy dafa am barke ndax ki ñu ko tuddee xam nga tur de wuyu borom ki ñu ko tuddee nit yàlla la woon borom barke la ka koy defit nit yàlla la borom barke la euh, ba pare di ci wax dëgg gis nga buur garab buñ ci génnee fen rek mu faj waaye taxaw ne mën naa nangam te dara du sa motivation lu mooy alalu àdduna wallaay da ngay fen garab gi nag li tax muy lëmbe mu mooy Sénégal dañoo wéradi am xaalisu faju mais amuñ ku leen faj man nag ma indi garab teg ci garanti bañ xam ne kii lum dëgër dëgër bopp lu mu doon controversé controversé luñ ko bañ bañ bañ garabam gi baax na benn ci client yi dafa ma message na ma. maa ngi door a xam lu tax nga mën a tooñ te du mujj fenn ndax Sénégal ku fi am lu baax ñu ba ñu bëgg la bés ni ki tey tooñal ku la neex may sa défendeur keneen garanti garab gi mooy boo ko jëndee euh, di faju hémorroïde wéroo coono war laa sonnal ba nga tooy nga naan benn kaas waxuma ñaar de benn wéroo hmm, sa deret ji tension wala jabet tere laa mën a koddal koddal bu dëgër moo tax may waxtaan ak yow buur wax ñaar rek la mën a doon muy xam nga jugal ak koddal du benn buur jugal leneen la koddal koy rek la te ci koy lay wax grammaire wolof jugal soo ci tegee ñu dem lan mooy jug nit kay jug jugal jàppale ma jugal ndàngam waaye boo ne koddal dañu xam ne li nga wax damay préciser ngir mu clair léegi moo léegi moo éjaculation comme ay complexe la nga xam ne du garaaw d'accord léegi éjaculation bi boo ko naanee euh, dans une dans une heure de temps la lay régleel sa situation garantie bii ma def ci la nit ñemewut ci garabam. dama lay delloo depuis 2019 de wax ji laa wëree àdduna te kenn musta delloo. ma delloo la 2019 20 21 22 ngi waaj a jeex nit musul delloo xanaa du ma baax te wóorule garab. et c'est vrai dama réew mais nag su ma kër laa réewee su ma téléphone laa réewee. suma mbiri bopp laa rewee ku xam suma reewaange yaa fekk suma place mais musuma ubbi kër jàmbur wane reewaange suma kër suma téléphone suma média ma wane suma réew ba mu saf ki mu neex mu safoo ko ki mu neexoon nga muñ. dem na ba que man buur la dama ko donn ci maam am jikkoy buur kilifa diine la ndax diine ji maa ngi ciy liggéey maa ngi ciy def suma wàll te ci li ma nekk la ñëpp nekk jéem a def lu baax def lu bon jéggalu ko yàlla ñun ñëpp ci leen ne y a pas d'exceptionnel quand donc man ci li nit ñi la ne li nit ñi doon laa doon yàlla mi teral nit ñi teralee leen xam-xam moo ma ko teralee teralee leen juddu bu rëy moo ma ko teralee teralee leen fulla ak fayda ak xam sa intérêt moo ma ko terale ci loolu rek laa ne Euh, li Serigne Wuli Touré nit du rëy bët ba koy xoolay rëy ku ma xoolut bët bu rëy su ma làmmee suma bopp xam naa may kan surtout suma benn juge daal laa am mooy suma conscience beneen ba ci tegu mooy euh, Abdoulaye ibnu Abdoul Aziz ibnu Omar dama jàng ninkaaneem ca bu mu toogee ci lali bi mu toogee ci lali dafa wax doom ji na ko àddina ak li ci biir buñ dajaloo woon ngir jëriñ la bu neexut yàlla mënuñ laa jëriñ waaye àddina ak li ci biir bu ñu dajalewoon ngir lor la bu neexut yàlla mënuñ laa lor ma dajawaat ak beneen sufiyanke kii di ko rey kii di ko dimbale mu taxaw di leen xàqataay ki ko waroon a rey teg fetal bi na ko yow lu xew mu ne dama xam ne yéen ñaar ko ci gën a dof kii war maa rey bu yàlla dogaleen du ma dee tey mënu ma rey kii di ma dimbale bu yàlla dogalee ne tey laay dee mënoo maa dimbale yéen ñaar ngeen di def loo xam ne mënu leen ci dara loolu laay donc dimension spirituelle boobu laay nekk le temps moo tax nga mën a jàkkaarloo ma saaga ma du ma saf waaye nga tagg ma duma ma saf mais saa yu ma xee yeewoo man Cheikh Ahmad ñett rek laay toppatoo suma ma ji mooy suma xel mi dinaa fexe ba jàng xam-xam bu ma xamutoon su ma xol bi ala inna zikrillahi bi tatmainul xulub tudd yàlla dëgëral suma ma xol waaye rafetal suma ma ruuxu gi ndax moom mooy dajeeg yàlla lu dul lii su ma yoon nekku ci lu ma waaye wax baax na sañ wax ak dëgër ay colère wu cantaakul yaa ngi boole màcceeru nit yu bokkul mën a fen ak mën a wax du benn. non tooñu kenn dama ne mën a fen ak mën a wax du benn yow yaa tooñ yow mi ko puus nit. ma tontu ne mën a fen ak mën a wax du benn. Kunkande dafa mën a fen te moom xam na ne dafa mën a fen donc man duma kooku kooku du man buur man su may nawle duñ génn internet dañ leen di muur ak a tëj ak a tijjee wër ñu am seeni taalibe di dox seen doxale ñu ñooy su may nawle mais ñi am maqaama bi ma am xam-xam bi ma am ak dimension bi ma toll duñ toog jàkkaarloo nit ñi TikTok dañ koy rëy. ndax Sénégal réew mu gaaw a yabaate la looloo waral Cheikh Tidiane Cheikh sañ Cheikh Gaynde Fatma toog ak Cheikh Tidiane si Paris ñuy waxtaan ba muy ree mu ne ko ah sëñ bi da ngay ree mu ne Sénégal ree xaju fa ku fa ree ñu yab la koo xamoon sénégalais yi mais nii ma wàccee suma bopp di am ak média yi waxtaan di kaf di ree dimension bi ma toll malheureusement Sénégal dañ koy réeree ci biir réere boobu moo tax nga tudd ma man sañ a tudd kunkande mais matière du benn nit nit la waaye la nit ñi mooy wutee waaw bu ñëpp yemoon cër yomal xiyaam am ñu gedd du ma moom du man bokkuñ koo xam ne foo ko bettee mu luxati ayab alxuraan teg xaddis da koy naan su fi yanke la xam na yàlla xam yonant mais am na fayda ba ci intérim lay dox mu ngay toppatoo waay juram doxul taxawaalu fenn foo ko fekk mu ngi ci soxlaam kooku doo ko tolle koo xam ne bu fenul du dund du benn man ak kunkande du benn mosuñu am problème no ñes mooy man moo mën a ak Adamo du benn mais moom mais moom na yàlla na yàlla kat tudd naa ko xam nga dama wax ma ne Adamo suñ xoolee mbiram dañ ciy xam yàlla bu baax nit ñi dañ daan toog di kattante seen katante di vidéo seen bopp ci seen cooy si bopp aadamoo di jot vidéo yi su ko jotee mu ne dafay defar weer leen ci pénc ma ku ne mu wala napp la ñëwal wala ma doxanday vidéo bi laaj la weer la gañe ci ay vie gañe ci napp nit ñi émotionnellement xam nga yàlla fan la mujjee ak aadamoo boobu toog ba benn bés muy live ba nit ñi seetaan ko yàlla na ko simmeekul mu simmeeku nga gis cokkam yooyu noonu mel ni tooli gerte bu booy ak kooyam bu ndaw bu dëng aadama moom su ma doon jaay régu yi dama koy may ngir kuy wax ci koy war nga am koy bu mët koy jub nooy dëgër rafet benn ñaareel ba moom nit ñu muy wax ci katt su baayam bàyyam kattutoon ndeyam du juddu donc yooyu daf lay war a permettre nag nga dem ba xam ne yow doo dara ci société mais nga la sa bopp man du man ak aadama du mat non même pas man man dama nekkul sëriñ noo xam nga sëriñ ñett nga ko mën a doone danga koy donn wala nga jàng ko wala yàlla may la man ñett yëpp am naa ko su ma yaay ak su ma baay sëriñ leen su may maam koo ci laal sëriñ la ma jàng ba pare yàlla may ma lu ne def naa ko ci mbirum ñaan maa ko bàyyi siixlu ko xam ne du mécc ma dem uti mécc mécc bi yonantu defoon laay def mooy commerce sëriñtu niñ koy defee nii ci jamono ji fenn la ndax nit ñi tappale ak dundi àq te man gor laa waaw mënuma su ma géer su géwél tiim ma naan ma Malick Fanta Ndiaye Malick Jalle Ndiaba jëri ci wàll wàllu Alsaan Samba Yaasin di ma tagg fekk li ma koy jox àq nit ñi la loolu rus naa ko mais man ak aadamoo bokkuñu dimension personne buy war a wax muy wax waaye koo xam ne moom li muy dundee du dafay toog wax xam-xam du dafay toog wax lu yéeme mënta wax ci alxuraan dara dafay xaar ay doomi aadama yu manqué manqué dal wala ñu topp seen bakkan wala ñu topp seytaane Euh, def njuumte mu jël ko weer ko ci penc mi génne seen i taat loolu lay dundee kooku bu waxee ci Cheikh Ahmed fierté la. non non moom wut ma xam nga saaga lan la. mooy nit ki wax la nga interprété ko mu métti la. mu ngi mel ni tey nga tiim tubaab bu xamul dara nan ko damay doxaan sa ne day ree du xam li nga wax. mais yow boo ko xamee nga interprété ko si lay doon saaga ku mel ni Adama mënut maa saaga euh, dafay weer boppam rek ah ndax bi may wax ci moom. soo sa soo demee Géejawaay info di nga fa fekk benn interview bu yàgg boo xam ne maa ko doon def maa ngi leen di wax ne bés dina ñëw yàlla dina wane ci aadama ne moom mooy buur te doomi aadama den ko war a bàyyi ci boppam buñ ko àtte jox ko yàlla bés boobu ma doon wax Géejawaay info en 2020 wala 21 moo toog ba benn bés mu simi kooyam yu ndaw yooyu yu dëng yooyu wan ko àdduna seex <laughs> mbirum mhm. mhm. ko yu mel noonu mu suscité colère yu bari ñu nag Cheikh nag kon léegi départ nag mooy dof la ndax fi mu teeree wax na ko dama leen di wax merci rek. Hmm, ñu ko wax daal dama leen di wax merci rek. léegi daal nga jox ci waxaat. la mën na góor amul la nga waxoon waxaat ko maa ngi maa ngi dëggal sa wax bësal bàyyi mu jàll. non même pas. même pas. même pa même pas. dama dama mën wax rek li may wax laa xam dama xam ban heure laay waxaat. non non non dinaa ci waxaat tey laa ci dul wax. Hmm. Mhm. lu bari na fi bu ñëwee Sénégal on nous bénit Youssou Ndour et le de presse ci na ay faramaare loolu wax boobu noo ko jàngatee sax non waxi Wally ne may number one showbiz la moom loolu la war a wax soo biis moom bul nangoo nekk deuxième mais bu làmp yëpp fayee mu toog ak soxna ay dara ci biir néeg soxna yee ko na ko kuy nomboor mu ne ko suma papa Youssou Ndour ku ci tegu daf ko naan papa juuf loolu moom dafa leer papa juuf tegu ci deuxième bi ñoom ñu xaccoo ko seen biir entre entre Momo Dieng Sidi Diom non Sidi moom day yuuxu comme pot bu yàqu. Eh, eh, eh, Sidi mënul mélodie non sérieusement man dama dagg suma billet 15000 sànce lu rëy daggal ñetti xale yu jigéen billet loolu ñaata la du 60000. fennoon lan Matar Diop a mën ak Subatel Sidi Diop du dara yow. fii la def grand théâtre ma dem pour jàppale ko Sidi tëb fecc ba ah ma ne waaw ci saa si ma génn Sidi moom mënut ndax jamono bi dafa waroon a toll ci ci taas ci ci awu mais siidi bu demee ba nekk chef de bande ci Sénégal. nga xam ne musique amatul valeur. non wa waali xale la ba pare waali ku yàlla dimbale dina yab ku ko mën <laughs> waali yàllaa ko dimbale macha allah mu judd fekk raam daan. li waali am buur boo ko amoon nga xam ne gënul laa dégg daaxu laa woy musiciens yu def 30 ans d' expérience nga ñëw ñu dugal la seen biir waali ngee la wax ba ñëw bayree ko dimbale gu wërsëg yàlla na ko yàlla xeeb te yokk ah woy am ndeysaan Pape Diouf Faye de bi nag moom la ñuy xàccoo mais Sidi est-ce que dina bokk ci compétition boobu. ba pare Waly Ballago Seck na xoolaat na xoolaat lyrics sam yi dafa am woy bu rëy bu mu woy moom la woy awa baaba mu ne ko su ma xamoon ki la yar ma yaroo ji fa non wax jooju dafa xas papa coon de dafa xas baayam bi ko yar ci ni ma ko déggee xam nga man dama dégg ni ma ko déggee mooy ki yar awa baaba moo dàq yar baayam moom awa baaba ko gën a yaru man su ma doon géwél duma ko taggee suma giir ndax giir ak géwél nawle la duma la tiim na la su ma xamoon ki la yar ma yaroo jëf ça veut dire que yaruwuma ça veut dire que ki la yar a dàq man noonu laa déggee wax nag boo ko waxee mooma toog ku ne ak na nga déggee man daal nangu naa ki la yar jikkoom doy na ma wala dana parce que olof dafay mën a dénkaane kala doy jikko kala yar waaye tiim awa baaba na ko su ma xamoon kala yar ma yaroo ji fa man d'accorduma su ma dégg-dégg la nag su ma gis-gis la nit ñi foog ñu nangu seen différence su gis-gis su ma point de vue mooy man du ma xool nit di la tagg na la su ma xamoon ki la yar ma yoro jëfa ça veut dire ki la yar moo ma dàq yar man noonu laa déggee way boobu lyrics boobu ci man waali warul wax loolu mais nag su fekkee su fe it's okay with him then so be it affaire am la mais man duma ma taggee nit noonu wala xool nit nag bu ma sañoon nga doon suma baay ça veut dire que moo gën sa baay ku dut yonantu bëgguma nga doon suma baay man diina lislaam bii Sénégal ñi dund ak ñi génn àddina yëpp maag ñoo ma yem ci diina ji yónniwuñu kenn ci ñun suñ ndey moomuñ diina ji suñ bàyyi moomuñ diina bi den nekk kenn ci jullit ñi li yonent yàlla Ibrahima waxoon tawa fa nii musliman loolu la ñuy ñaan yàlla ñu ñëpp dañuy mébét dee doon ay jullit ku ci nekk alquran nga am ak sunnatu rasulillahi sa dégg-dégg mooy sa escalier fa nga yem rek nga mën a yem man diine ji euh, su su dëkkoon kër ma ne suma kër maam la dëkk mais nag dëkkul kër kenn inna akramakum indallahi atqaakum kenn daf ma tenewul ci diine ji du benn xalifa général ci réew mi du benn imam du benn noddukat ndax cër bi ma am rek leen am duma ko mën parce que parewuma cee wax tey dinaa ci ñëwaat beneen yoon daf dut fii daf dut tey loolu laa parewul te pour garder temps bi foo wiiri duma tontu dañ koy sakkanal te jàll parce que Cheikh Ahmed la quand même du ci wax tey dama ko yàkkamte su boobaa la nit ñi di xam nga Yékini nee na biñ ko ne bal baabooy tuut mu daan la mu ne bu ma mbër tollaatee fa ma tolloon ñu xam su ma mën a ginnaaw su ma wér parce que suma suwaa rek maa moom suma bopp xam nga wax moom li la neex ngay wax mais sàggante ci wax weesuwul nit wax loola loo bëggut a wax I not ready to talk about it right now c'est bon ma maa ci parewut wax tey. kon non wax joo xam ne yàlla gërëm na ko <laughs> yonantu weddiwu ko. loolu laay wax beneen yoon mais du tey. lu parce que loolu laa suwa. non man Sénégal bala may wax ak ñoom xam naa tontu ba xam naa li ma war a wax ma foye muy teg ko dëkk bi yëngu ma leeralaat ñu avancé ci leneen mais tey laa ci pare wut xam sénégalais yi maa ko ba mu baax ma dóor laa ko def xam naa li may wax de. xaruma dama ko bëgg bu bu bàyyam kattan yaayam du judd na bàyyi kattante muy wane dama ko bëgg. non munuñ jotee du maag Adamo dag ma laaj ci moom rek ma wax ko ma wax la mu jeex surtout. Cheikh ma tëgg lu na vraiment Sénégal gën a sori du sori du bokkul Mbaye Diagne bokkul atmosphère bi ñuy demee. no senegal jàpp bu amee match niil dafay mel ni Mourinho bañ ko joxee Manchester mu am deuxième mu ne mooy meilleur résultat am ci football senegal bu amee match nul nañ ko jubilé. dama ne. waaw bii ñu jëm. waaw équipe bu mag bii di senegal bu amee match nul na ko jubilé. ci match de bu mu ci am na ko jubilé. yaakaaruma sax mu dugal bii. non yaakaaruma nit laa kuy yaakaar néew ma yàlla lii la ma wan néew lii laa gis su yaakaar laay waxee. ci xam football. xam ne morali équipe bi dafa daanu ba zéro. ay wax yu sew ci biir non Matar ba moom su sañoon Sénégal jël coupe du monde nit ku baax la. Mm-hmm. ñu génnee ko tax mu yéene Sénégal lu bon kon baaxul te Matar nit ku baax la. mais moralu équipe bi moo doon première point fort équipe bi moral bee damm. parce que dafa am défenseur boo xam ne dafa am défenseur boo xam ne xamul dara. jouru nawetaan la topp nit ñi di liggéey rek ci équipe bi ak milieu terrain boo xam ne amu fa place di liggéey nit ñi di wut sëriñ di yàq rek xam neen seen bopp. non yenn wax yi doo ko leeral da ngeen di xoolante rek ku fa mérité wut place moom la ambiance ak football du benn mënuñ dara. déedéet waaw du gànna. xam naa ne milieu terrain la daal buy laccax laccax ci digg mënul mënu waaye waaye du gànn bi xam na xam naa ne daal ñaari ñaari ñaari joueur benn milieu ak ñu ngi yàq équipe bi ñu ngi liggéey nit ñi rek. bu su fekkee ne kay. dañuy liggéey nit ba coupe du monde ñëw baax na neen ko def mais Sénégal gii ma gis nii yàlla na gagné yàlla na am ndam mais match nil sa yaakaaruma ko benn bii yaakaaruma ko pour Sénégal. Balla Gaye moo koy daan. Ah, bul xalaat bul werante bul laajte. Balla da koy daan point. fu ma ko teg. gis nga signature moo boole Balla Gaye. Hmm. ak Boy Niang. mais bu ñu tase woon guddi balla na ko toogal booy ñaadu buusi da ko mën dax koo bëri ëpp ko caay yu bëri ëpp ko xaalis ëpp ko ngemb ëpp ko xaalis ëpp ko ngemb ëpp ko supporter te bal booy ñaar li muy wax ne day attaqué Balla une minute la ko may waxu dëgg du ko def bi man ne sa mbokk la na ko teg naa 3 million bu attaqué Balla Gaye une minute mu jël 3 millions te fenn bañ na seede du ko def bu jegee ma jox la exclusivité bi univers wax la nan la koy daanee parce que xam-xam ak làmbatu du benn dama xam Balla Gaye moo ko lépp bul bul déket bul détail dafa door a commencé li ko dal mooy li dal Eumeu seen teel a bëri teel a jël roi des arènes mais Balla commencé ko ci làmb Balla war na mën a bëriwaat 30 combats sérieusement benn année bu ne mënu ca bëre 5 fois nen ko fay lu ko jat Balla mën na bariwaat yeneen 30 combat du daanu lu mat 5 ndax jom jee bëri. non non non xanaa tardel combat bi ak làqatoog daw su soo nga xam nga boo bëggee nii sab sab da koy daan de yambar la. Eh, ndeysaan miyaa doo leen ma ko jotalil su ma mbëggeel ci moom comme làmm naa feneen mu métti jox leen ma miyaa non man intérêt rek non non nobantewu ma de intérêt jigéen ju ma amal intérêt ma ñëw takk ci lii lay dox man man yonentu rek laa nopp moom laa bëgg suma point de vue ci divorce bi mooy seen normal ah. yàlla tas la njëkk a daganal door a takk takk sëy xam nga ñaar ñu bëggante di wéy dem bay dem gendarmerie y a des problèmes bu demee ba fitna war a am taxale ko leen ci jàmm loolu la alxuraan wax loolu du maanaam du susi murtani gii ñu nekk dañuy bàkkoo tas da ngay tas ñu tëgg xew ne tas na ñu ngorowaat la nga tas sa bàjjan bu lay yedd dala naan tas naa 18 fois mais Sénégal waa ñu jël farata def ko ndam jël tas def ko def ko gàcce tas du gàcce xam nga lan mooy gàcce ñu may la jigéen ngay dóor a ko toroxal ba mbokkam yi nangu ko lan mooy gàcce ñu may la góor mu amee la nga nekk këram anam bu rafetul bañ fase la mais sëy day tas te fekk kenn deful toor yàlla moo ko jeexal. musul nekk couple non musul nekk couple parfait bul fàtte ne lañ daan wan nit ñi lu ñu programmé la mu mel ni man dama solu sol suma mbaxana sañse toog pour interview lii may wax su caméra yi fay beneen façon ngi wax laa am donc loolu dañ ko daan pare bind seen woy tëgg ko loolu lool du couple couple heureux doo ko gis ci image mais danga koy yëg ca xol noonu la mbir yi demee. Hmm. lan mooy détention arbitraire. maanaam nguur gi moo deful dëgg loolu nga bëgg a wax su ma déggee laajte bi pour ma tontu. d'accord mais am na ñuy wax ne Pape fenkat la tam comme ni ñu waxee ne nguur gi deful dëgg loolooy opinion sénégalais donc am na ñuy wax ne rambaaj la jaxasekat la danger public la gënut ci réew mi te responsabilité Macky Sall la nag mooy sàmm réew mi ak ñi dëkkee réew mi ak seen alal donc nit koo xam ne saa yu yëkkatee kàddu ñetti objectif la am mooy neen gëm ne opposition bi ñoo baax neen gëm ne nguur gi baaxul mu fexe nguur gi ak ñi jiite ñu am musiba di joxe ay rumeur dans deux semaines ñu ñëw décortiquer que dafay fen lii du dëgg ak journalisme nu mu nekkee métier bu noble journaliste ni mu war a doonee bon exemplaire parce que démocratie ci àddina mënut dem sans journaliste léegi doo am honnêteté jéggalu askan bi ku mel noonu dëgg-dëgg boole ci màndi boole ci amul melokaan waaw man de wax dëgg yàlla dama ko gis maa ngi koy seedaloo yàlla billaahi wallaahi tallaahi su ma diggante ak yàlla su bët nii ak jëmm ji mu naan ba màndi ba tërëf di daanu lii moom maa ko gis waxuma dama ko dégg liiruma ko fen soo jugee ko Radisson yoon bi nga xam ne mooy yéeg balaa ngay dugg ci pont bi pour jàdd sa duraat boo ñëwaatee door a jotaat euh, yoon bu dem faan ak yooyu foofu la woon lii moom wax dëgg yàlla maa ko gis ku mel noonu nag su mënee indi danger publique parce que am na image am na popularité donc dañ koy jàpp teg ko benn place yar ko ndax bul fàtte na kaso gi ci réew mi la bokk ah euh, lacrymogène yi ci réew mi la bokk fetal ci réew mi la bokk yépp situation lay rek la rek waaye en tout cas wax loolu ci Pape Alé Niang defut ma ignorant ma réeree importance su journaliste defut ma it ignorant ma xam ne am na ay journalistes yoo xam ne siwuñ mais ñu ngi def liggéey bu extraordinaire ci ay effort ba seen organe de presse bi leen jël sax du leen di jox paas ñoom ñooy paasal seen bopp gis ay caméraman yuy gàddu caméra di daw ci àdduna wërngal képp maa ngi rafetlu liggéey journaliste yi mais nag ñoom tamit war nañoo dajaloo seen biir journaliste bu fen ñu yar la ku rambaa ñu yar la ku def luy yàq réew ñu yar mais pas da ngay défendre parce que journaliste la su boobaa ñoom tam nit ñu bon leen te journalisme dafa am importance ci démocratie non not man yow yaa ne non xaar xaar yow yaa ne non dama lay leeralal da nga juum non dina la may nga daane mais foog di nga daane mais foog ma leeralal bala ngay avancer pour nga avancer yow yaa ne ñenn ñi dañu jàpp ne nguur gi den ko tooñ ma ne la ñenn ñi dañu jàppale mais pas man li ma jàpp mooy mandikat la ndax maa ko gis mais leneen li ni nga waxee ci nit ñi noonu laa waxee ci nit ñi la mun naa am li may wax dafa bëri su dee suma gémmañ la gémmee kon fa la génne ah,

Mm-hmm. moom moo moom lépp lu fii li nekk ci réew mi di fi yëngatu moom mooy def mooy dindi su taxawoon tey di Pape Alé Niang moomu ngeen woo pour dégg pour déglu ko boo leen ko déglee ba pare nañ ko bàyyi mu ñu moom moo waxoon lu leer naa ñu en français ko ci wolof tant mu ngi nekk président de la république ci réew mi su seetaan ñu jàpp benn journaliste bu ko dugal ci kaso ci ay délits yoo xamante ni ay information yu jotale ci kaso amul leneen lu ko nekk donc ñu gis le contraire ma ni est que li nga jàpp ci Pape Alé Niang est ce que mënuñu ko jàpp ci parce que wax na mu dégg xam nga Macky Sall bu fekkoon ne justice bi saytu biir réew mi dafa xool Pape Alé ba Macky moomu réew mi dégg la moo tax ma di la tontu mais ma ñëw doom mais ma ñëw Macky Sall ci boppam sañut loolu ndax du buur bi ci réew mi président la dañ ko élire justice buy def liggéeyam da cee war a màndu bu doon amadu Sall leen jàpp day màndu jàpp neen ay nitam jàpp ay députéem tëj te mënu ci dara loolooy réew mu démocratie te Sénégal exemple la ci démocratie ci àddina wërngal këpp Pape mag yi jàpp ko sañu koo jàpp mënu koo jàpp dafa def lu sartaay réew mi bañ ñu jël ko teg ko boor point mun sa tegee ko ndax moom jàppagul sax nag bay bàyyi moom jàpp mag da koo sañ bu jàppee Pape Alé ma dóor ko di Gabriel kenn nga tuddee Gabriela noonu dëgg la. am na ñu koy woowee Gabriela. d' yow ci ñi koy woowee Gabriela nga bokk tuddul noonu Gabriel kan la tudd ni ma gisee émission bi mooy Kali assumé na mooy teew na xam nga lu mën a xew dóor na émission ba mu jeex félicitation am na ñu dem émission gedd am na ñuy invité ñu daw ñëwuñ mais moom la fait mu toog ba mu jeex félicitation beneen bi mooy man euh, su ma doon moom su ma nekkoon à sa place. du ma du ma nangu tunkara dugg du ma ko may duma ko may visibilité boobu ku tekkiwul dara si bi ni brosse douce Sénégal yëpp di seetaan nga may ko visibilité mu ne da lay jox moral te tunkara xaj la du nit ku baax moom mu ngi noonu ni Ahmed Aydara doon lay président di wiiri mel ni ku gëm Sonko tunkara ko gën a yées secret bu siw ci Ousmane Tunkara sonk moo ko joxe te du ma waxantu te wax naa ko 6 mois. neen toog ñu waxtaan ma jox la preuve ne ñu ngi lay jox xaalis ñu ngi lay dundal te yaa ngi liggéeyal nguur gi mu bañ su fekkee dëgg ko ñor ba muy woo kali di leeral ne ñëw ñu waxtaan su boobaa Sénégal xam maay fen am mooy fen benn ñaareel ba diggante ma Gabriel Kane aw ma ci kàddu parce que ay sœur leen ak frère ay halpulaar leen su ma bàjjul mu ne boo fekkee mbokk yu xuloo ne leen nuru ñaareel ba aji saar mi dugg pour man warutoon a dugg kook lu mooy noppeek toppatoo procès waru ko waaye sa ñett ñu la doon faral ñu am réeroo nga dugg daan kii kële yéen ñi may jàppale nangam nangam pour man communication Adji Sarr ñoom yi neen la de wax dëgg yàlla dóorante bu moom xaw ma ko man su ma dóorante laa xam te man yi ma yi ma feeñ yëpp den ma dóor benn bi Kaolack la ba may ñaani ndox benn bi Adji Sarr ma dóor man moom dóorante wu ma dëgg yàlla xaw ma kuñ dóor soo bopp laa xam seen dóorante dëgg am du dëgg man <laughs> suma ma dëri 12 janvier laa taal

garab bu baax laa leen di jox ndax demande bi moo bëri te dajutum réew senegal ñu bëgg ngeen xam ne nit su waxee ci diine ngay saaga ndeyam amoo diine diine bëggul saaga bëggul wax bu ñaaw nit su waxee ci diine da ngay am xam-xam démentir ko ci xam-xam mënoo ko nga ñu sa noppi point ba pare diine ji dund ko sëriñ diw waxee sëriñ diw kenn la ci diine ji man kenn la ak téere bii la la wax man suma xol bi téere la xam naa lenn ci téere yi ba xam lu nekkul ci téere donc il faut ngeen arrêté seen conneries yii diine du li ngeen miin ak li ngeen tàmm mais mooy lii yàlla joxoon yonantu ba mu taxaw yow ma arafa ne ndax matal naa ñu ne waaw yàlla ak malayka yi seede mu ne seede leen loolooy diina lislaam lépp lu ma wax ci diina lislaam maa ngi xaar kan moo ko mën a weddi ci xam-xam mais nag wax sa xalaat kii nii la mel neen ko génnee dafa reew dafa nangam yéen a ngi wane ñaaw téef ci turu lislaam te lislaam xamul génnee lislaam xamul dàq lislaam xamul saaga lislaam xamul rey xamul xalab lu may mu nécessaire te ci kaw masala buñ mal am malantaan kooku clarification bi xam-xam moo koy def mais du agressivité rawatina ci biir jullit bépp propos bu ma wax ci lislaam xam naa ko jàng naa ko maîtriser naa ko soo ko xamul nag da ngay leem say kaaka xaar ba beneen yoon noonu la kaa bi tëddee su fekkee amul beneen laajte képp ku ma doon seetaan am cofeel ci man jërëjëf ba ma bañee nga muñ te ñaanal ma yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.